Khalil de ñu ngi lay nuyu Ah, maa ngi leen di fay. ñu ngi bu baax a baax ci euh, weeru gàmmu ngi waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax yéen i tamit euh, ci weeru gàmmu gi. Euh, ñu ñëw fii Soumbédioune d'après fi ne ko xam Soumbédioune xam nga ci gaal xam nga gis Soumbédioune gis ko ay culture lu mel ni yu bari bari yoo xam ne gis fi demeeku gis nga phénomène boo xam ne aussi actuellement dafa bari depuis dimanche ba tey daan nañ ko dégg lu yàgg waaye actuellement nii dafa nekk lu gën a bari moo di jeunes yi dem ci géej gi di dee ci géej gi aussi tey ban jàng nga ci am. bon maa ngi wax avant tout d'abord maa ngi ñaañal ñi nga xamante ne ay immigré la ñoo xamante ne des nañ ci géej gi ak immigré yoo xamante ne tamit des nañ ci kaw joor gi parce que immigré yi dafa bëri ay façon yoo xamante ne nii dafa wuute am na ñoo xamante ne ñu ngi jaar ci kaw am na ñoo xam ne ñu ngi jaar ci géej gi bon man xam naa mën naa la wax benn kii daal ci man exemple man j'ai déjà vécu ça dund naa ko waaw jaar nga si gaal bëgg na Espagne. non jaal jaaluma si gaal mais j'ai essayé de tenter ça mais man ci bateau laa ko tenté. ok mën nga tout expliquer tuuti d' après euh, euh, situation bi demee. bon ni situation bi defee c'est c'est c'est c'est am na critique na critiquewul parce que boo xoolee ne euh, yow da nga war a dimbale sa bopp avant tout d'abord ba pare dimbale say mbokk dimbale ñeneen te réew mi nga nekk comme koom bi xëy na demeewul noonu mm. wala xëy na tamit Euh, koom-koom bi am na nu mu demee mais xëy na yow sa loxo jotul sa gannaaw. dellu encore yeneen coono yoo xamante ne mu ngi ci biir réew mi yoo xamante ne yow loo cee gis sa bopp. bon donc il faut nga tenter yeneen porte te na nag loolu moo indi ba affaire clandestin am. tenter yeneen porte ak ok wut sa wërsëg. wërsëg nag kenn xamul fa la ne. nit ki da ngay wët rek. bon. bu ñu seetee ne Africa bon xëy na nit ku nekk fi nga nekk mën nga faa tekki nit ku nekk fi nga nekk mën nga faa tekki mais xëy na Africa doon na lu xaw a difficile tuuti quoi xaw na lu xa xëy na xaw naa metti mm. pour nit fi mun fee am loo xamante ne ba moom day dem ba dimbale ñeneen ak ñeneen loolu xaw na fi metti mais tamit wërsëg ci yàlla moo koy joxe. ok bëgg naa xam ni euh, bi ngay tenté pour dem loolu ban année la woon. Bon ça fait des années 2008 entre 2008 2009. fa nga des fii si Mbodium wala Mbour. Eh, gi euh, euh, Gambie a commencé. Gambie laa njëkk a defee tentative pour def clandestin. ok est-ce que vous nga ñu expliquer tout euh, li fa vous avez fait ak li fa jot a jaar li fa a dund. bon am na ñu si ñu si jot parce que man ah, j'étais avec un ami. Quand mm. man mun na mën a wax ba est-ce que j'aime na Europe wala dee ou wala neneen mais on a tenté ça et encore une biir géej la ñu jàpp. grimaldin. Grimaldine xam naa ñu bëré tay buñ ko déggé dinañu ki mais man je tenté à faire ça. et xeyna réussirul biir géej dem ba biir géej ñu japp ñu délo si mais aussi ça ne change rien mo tok muñ. mais après ainsi de suite ma gis gal selon ko ben bande bon man je je peux prendre tout risque. mën naa prendre tout risque mais amna risque bo xamanteni tamit dafa doy war quoi parce que amna certaines certain yo xamanteni boko jëlé ko pour risque rek yow du pour risquer te yow fu mu nekk sa bakkan bi dang ko jaay. ok légui avant ko gi dem ci euh bato bi nga jëlone pour tenter pour dem dund euh, nga fa bato bi ak ak ñeneen nga andal ay jafe-jafe wala. non deux personnes rek lañu ñu. ñaar rek lañu ben benn la ben guddi la après le lendemain sur lendemain bateau bi décoller dem. à peu près ay 500 kilomètres à peu près si la ñu bon sama xarit sax moo génn moo génn kal bi ñu nekkoon parce que déjà moom yaakaar ne bato bi dam na sore na mu ne day génn man man xam naa ne bato bi àggul demagul fenn mais ma interdit ko mu bañ mais ainsi bi mu génnee tubaab yi gis ko jàpp si leneen nag du man kese quoi ñaar lañu am na keneen ku nekk ci kal bi ok ñu ñëw ci gaal est-ce que euh, mën nañ xam aussi yenn façon gaal ñooy dem souvent que genre mel noonu ndax gaal yi la wala dafa am yeneen façon gaal. gaal yi gaal yi duñ gaal yi sax yow nit sax bu la buñ la waxee gaal kii day dem clandestin euh, euh, lu mu dee dee mais am nañu si bëri dañ leen di dinañ leen corrompre si yenn fànn yi am na ñoo xamante ne dinañ leen di corrompre naan leen bato ba la. yow ba nga jël ba ba nga jël sa xaalis dugal ñi xamul. bis bi ñuy yaale si gaal gi wala di la yóbbu si ngay doog a xam ne yow si gaal ngay ñëw mais am na ñoo xamante ne xam nañ ne gaal ngay yéeg mais gaal gi du catégorie bi. du catégorie bi déedéet. nekkul ban gaal la. catégorie boobu amul fii sax si tefes bi amul fii sax si tefes bi ba mu daj. amu fi amu fi mënuma la catégorie bi amul fii. parce que gaal yooyu aussi du gaal yu tuuti. ba gaal yu mag lay doon te gaal yoo aussi da nga leen di estimer sax bato bu ndaw. boo leen di estimer da nga leen di estimer bato bu ndaw mais jotaguñu ba léegi capacité bato bu ndaw. parce que déjà gaal gu mën a jël cent cinquante personnes. Mhm. kooku capacité bato la. mais encore euh, près ñu ñu baal ma quoi parce que nit ki booy def dara tamit na sell quoi. parce que boo jëlee gaal goo xamante ne ni baaxul. Mhm. gaal goo xamante ne day na gaal goo xamante ne mënul diir ci géej gi wala nga jël machine yoo xamante ne dañu paan nga defaraat leen. Mm-hmm. pour yéegal ci ay doomu euh, doomu aadama loolu yow yóbbootoo nit ñi yow ñoo rey ci géej gi nga bëgg. su ma déggee est-ce que affaire bi amul business. am na am na ku ko nangu am na ku ko nanguwul am na ñu koy tere sax ñu nga ca ñu koy tere ñu nga ca. bu ñu li may wax la nag dafa doon loo xamante ne c'est très loo xamante ne ni ñu bëri duñ ko nangoo récolter duñ ko nangoo encore nangu mais am na ñu bëri tey ñu ngi koy interdit wala di ci daw naan nii fekk ñoom ñoo ko créé ñoom ñu nga ci biir. parce que le clandestin boo seetee boo ko seetee bu ci biir du fii la jóge clandestin jógewul Afrique dans le vrai sens clandestin jógewul Afrique tubaab yi ñoo ko créé. africains yi dañ ko miin tàmm ko ñeme ko mooy lan parce que eux ils n'ont peur de rien te yàlla may na leen ci xam-xam am na ñeneen ñu nekk fële ñu leen di jox ay code yow bu ñu la joxul code fooy jaar yoon bi ngay jaar pour accès fenn doo mën a dem waaw léegi nag koo jox code benn yoon mu dem bu demee ba àgg bu gisee keneen ku bëgg dem ku nekk fii mu jokkante ak moom dina ko jox code la ay link la affaire bi yëpp link la ay branche la dax day dox ay damier la gaa yaa ngi ci suuf ay responsable ñu ngi ci suuf toog. mais d'après mais d'après ñu nga xam xamuñu comme gaaw lu mel ni man wala dara lu mel ni jéeju ñun xamuñu exactement gaal nu mu demee wala du genre mais yéen ñi nga xam ne euh, xam ngeen gaal en tant que euh, kat euh, yaa ngaa dem ci gaal ay ay fan yi fan wala ay weer doog a ñëw jàpp nañu ñoom bi ñu waree dem ci def clandestin dem Espagne wala yu ñu mel. da ko jërtu ñu saytu gaal gi xool aussi ba baax a baax. waaw mais. yow xamuloo gaal yow xamuloo gaal musuloo gis gaal buñ la indilee gaal nga dim gaal buñ la ne kii mën naa àgg Espagne da koy gëm. boo fekkee ñu def ci ay cinquante personnes soixante personnes doog ñu ngi toog di xaar dangay ngay gëm ne gaal gi mun na àgg àgg moom yàllaa ko yore mais tamit ñi nga xamante ne dañ koy def man je leur conseille kooku mënu man munuma ma kaa tere yow mënoo kaa tere. gouvernement bi ci boppam président bi ci boppam dañuy wax nii ba sonn mais mënuñu koo tere parce que déjà ñoom amuñu sax effectif boo xamante ne mën na garder géej gi ba nit ñi mënuñoo jaar fenn est-ce que yaa ngi dégg fu mu waxee. amuñu effectif boo wallaay jarul noddu amuñu effectif boo xamante ne wa ñoom war nañoo mën a garder géej gi ba benn gaal du rëcc génn fii dem yoonam déjà loolu problème la. problème la. léegi nag nga bëgg yow amuloo loo xamante ne mën na garde si géej ba nga xamante ni ku fi war a jóge dem beneen réew nga téye ko. Hmm. léegi kon nag nga interdire gaal yi donc ñu ngi nax sunu bopp si benn côté. dañu wax ne le Sénégal c'est un pays dañu bëgg arrêté yenn yi mais la marine dafa war a bëri bëri ci biir géej man du ma wax ne euh, bu kenn dem clandestin ku mën a dem clandestin nga am yoon demal. mais gouvernement bi nga xamante dafa jël propre responsabilité bëgg a arrêté yenn yi bëgg leen jaale ci voie normal dafa war am effectif boo xamante dafa war a nekk si géej gi surveiller géej gi vingt quatre heures sur vingt quatre fekk benn gaar waru rëcc. kon yow d' accord nga euh, clandestin. ñu war a yor gàtt gaal dem Espagne d' accord nga ci. pourquoi ma koy bañ. pourquoi ma koy bañ man tey bu doon sama sago maa ngi Europe dama bëgg liggéey am lu bëre dimbal sama dimbal samay mbokk dimbal ñeneen ak ñeneen parce que fa la gën a gaawee. est-ce que du affaire bi du kii de fi mu gën a gaawee la ñoom fi mu gën a gaawee fa la ñu soxla te boo seetee li ñuy def yëpp encore gaaw na gaawut parce que yow fi ngay jëm du agsi nga rek nga am li nga soxla déjà da ngay seet le âge le plus bas bu ñu fa àggee il faut que ñu jàngaat mooy ñu gën a tuuti ñi mag ñi ku fa àgg amuloo métier di nga jéem a jàng langage bi te langage bi doo ko jàng ci benn fan ñaari fan il te faut des mois. xam nga pour nga mën a comprendre wax bu nga mën a dégganteeg ñoom bon nga dem fa amuloo métier xamuloo dara il faut nga jàng métier tubaab yi dafa ñu duñ jël nit ki noonu rek eh, kii ko noonu rek di ko fekk amul lu mu liggéey fekk dara duñ ci boppam même koy liggéey ci toolu ceeb dinañ la jàngal naka la ñuy jiwee ñoree naka lay di tubaab yi dafa ñu am na ñoo xamante ñu ngi naan dañu bu ñu àggee rek dañu war am kayit yow est-ce que Sénégal fii il y des étrangers ñu ngi fi est-ce que xëy nañu suba rek ñëw fii Sénégal xëy suba rek am fi kayit il y a des gens qui ont des années je suis sénégalo mauritanien Je suis sénégalaise Je sama papa mauritanien la suis naa kayitu Sénégal ça fait plus de 15 ans que ngi suis mënu Sénégal en tant que Sénégal donc yow tu es nga da ngay dem Europe est-ce que yas tu tout ce tardement là té ñoo calculé wuñu ñi di clandestin ñep calculé wuñu lool ñom la lañ calculé lañ dem rek ag ya ngi dem yow xamulo ndax sa wërseuk mu ngi fa wala sa wërseuk nekku fa yalla mën la di nga ag mais est ce que da ngay ag rek liggéey lool mu nga ci man damay joy yoy yep parce que il man damay son man man mi bëgg dem dama prévoir lool yep buma agé dama wara tok ay mois ay wèr dinaa lekk dinaa naan dinaa solo mais balaa may liggéey kañ la balaa may am këyit kañ la. waa tamit dem dem ci biir géej tamit euh, ci gaal dafa xaw a doy waar. ah dafa mel ne avion dafa mel ne oto. encore c'est la même chose. Ah, gis nga voyage gis nga dund ak dee yàlla moo ko yore. gis nga voyage. mais des fois ñu jànkonte si si biir gaal gi yu doy waar. Eh, waaw nit di sa kanam. nit di nga gis yow xam ne waroo koo gis. waaw kooku c'est naturel. man gis nga man xëy na nag ñu ba fi ma lay waxee boo toogee bu baax bu demee ba nga toog après nga kal gis nga kuy dawal oto beeg de transporter di yóbbu nit mu fay paas ñoo xam ne clairement mu ngi nii day dem def accident kii dawal avion yàlla nañu ko yàlla musal mun dañuy toog ay des années du ñu dégg avion bu kii mais dañuy toog benn sa avion bu crash avion bu def dara te pourtant ay passager la jël ay voyageurs kat la jël xëy na ils sont en règle peut-être mais xëy na gaal gi ils ne sont parce que ñi fay dem ñëpp amuñu kayit. kenn du si am kayit sans ay nga gis ay benn benn nit yu yóbbaale seen kayit loolu moo ci loraange bi loolu rek moo ci loraange bi ab nga jël yoon boo xamante ne nii xamuloo temps bi. climat baaxut xamuloo géej guy fees xamuloo géej guy fer ñaari climat yooyu ñoo gën a nekk importance si yëpp géej gaal guy dem boo xamul géej gi mu ngi fees xamuloo géej gi mu ngi yéeg. xam bo geej gi buy daw da fay yek wala dafay wàcc xamuloo da lay dugal biir geej xamulo da fay wàccee kaw boko xamul nga jël galu jambour yobbu ko yobbu ñaata nit ñaata nit nga lor ñaata nit nga ray te instant bi ci jamono bobu lañ toll instant bi ñi mënon ñi mënon deug deug ñoon kenn ne mais ñi fi dess ñep légui dañuy tanté mais que souvent que dañuy gis ñeneen ñi euh, ñi ñi dem passager yi <coughs> dañuy euh, dee ci gal gi mais souvent est ce que euh, ñi capitaine yi dool bato bi wala ñi dool gal gi est ce que souvent que ñom lañ seen baxee la sigi day ñoom ñëppay dee am na ñoo xam ne ñëppay dee amul capitaine bi amul kii amul kii ñëppay da ngay gis gaal goo xamante ne kenn du si kenn kenn du mucc ok exemple gaal gi teer Brésil est-ce que am na ku si mucc kenn ça veut dire que capitaine yeeg ñëpp dee nañ gaal gi teer Dominique est-ce que am na ñu si mucc kenn ça veut dire yi sax dee nañ ah nu mu waxati ni Cap-Vert kan kenn dund si ça veut dire que capitaine yi sax dee nañ. donc dee moom wax dëgg yàlla metti na metti na wax dëgg yàlla mais nag nit ki fu muy dee moom rek moo xam affaire clandestin man len rek laa mën wax ci loolu na nit ñi wàññi nañ def ndànk parce que temps yi buñ ko xamul buñ di gaaw dugg bu ñu temps yi nag ah ñoom tubaab yi ñoom wax nañ leen ko tere wuñ leen ngeen ñëw mais temps yi ngeen xam ngeen temps météo yi météo mën na la wax tay temps bi tay day am nga xey tay du am nga nga yaakaar temps bi du am fekk suba temps bi di ñëw wala dafa jadd dem feneen ngelaw bi day contribuer day tourner di dem mën na tourner jaar neneen nga yaakaar ne temps bi amul fekk dafa tourner jaar feneen mais suba mën na day ñëwaat ci yoonam day jaar dalay fekkat fekkaat foofu te loolu moom mooy surtout le grand problème gaal yi ñuy yóbbu encore nañ koy assurer parce que booy defar luy yóbbu diggante ay lu tolloog ay 3000 et quelques kilomètres tey gisuloo suuf gisuloo garab gisuloo dara amuloo fooy yeewu ba ne xaaral ma taxaw fii noppaliku yow daw la rek amul taxaw bu fekkoon da ngay taw di arrêté dax ba si àgg arrêté gars yi wàcc lekk kii amul problème comme oto yi comme amul problème mais gaal goo xamante bu xasee ba départ amatul taxaw yow lépp ci biir la foofu ngeen di lekkee fa ngeen di naanee fa ngeen di defee lépp ba yàlla dimbale leen ngeen àgg wala ngeen bañ àgg waaw en tout cas euh, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax bu amoon aussi benn message booy lancé euh, la war a nekk. man daal message bi may lancé muy ñun ñëpp sénégalais yëpp ñun ñëpp war lañu takku taxaw dimbalante jàppalante te yàlla tax alal ñëpp ko bëgg mais tamit alal na ko na nga ko fekkee na nga dund loo xamante ne da nga koy fekke ci ëllëg wala na ngay wut loo ëllëg loo xamante ne yow da nga koy fekkee danga koy njëriñoo. man bokk te di ñaan encore kilifa yi waxuma la gouvernement gouvernement waxaguma leen dara de kilifa yi kilifa yi ñi nga tax ñoo tey ñoo tey samp Sénégal yore Sénégal ñoom tey xëy na bu ñu am na ñaan yoo xamante ne buñ ko ñaanoon def ko tey xëy na affaire bi dina xaw wàññeeku parce que am na yenn yaan yoo xamante ne même bu nat daroon nattoon di def yàq-yàq yu bëri sax xëy na yàlla dina muccal lu bëri bëri ma dolli si encore gouvernement bi surtout le président de la république na dimbalee sénégalais yi jàppale leen te yàlla tax bu mu seet dara bu mu xool dara na xool ne ay sénégalais ñoo yëkkati réew mi jox ko ko pour mu jàppale leen dimbale leen xëy na moom moo mën ci ñoom saafara moom moo am seen saafara lenn mooy problème bi ne effectif bi garder ci biir géej géej bi nañu mat na na am doole pour ñu mën a taxawal yu bëri sinon gaal yi kenn mënu leen teree dem.

tefes yëpp Sénégal tefes boo xalaat gaal am na départ l'essentiel ñi nga xamante ne nag ñoo yor kaaraange yi kaaraange yore kaaraange nit ñi yore fi sénégalais yi xam na ñoom mun na nañoo aar sénégalais yi nañu jéem a defaraat seen taxawaay ak seen toogin jéem a xalaataat bu baax citoyen sénégalais yi dëgg la ñu ngee dem ci dëkk Europe yi lan moo leen fa yóbbu mooy tekki pour am dara dimbali seeni i waa mbokk ak dimbali seeni i waajur demuñu pour yàqu wala pour leneen Sénégal moo ndóol ñu fi war a am amuñu kenn mënu fee gis sa bopp seen ñun ñun ñëpp tey ji ñu ngi suñu gis-gis mu nga ci Europe ñun ñëpp ñu ngi Europe nekkutuñu Sénégal donc sénégalais bu ñu bëggee nag ñu sénégalais ñu nekk fi nii dañu dañu war a taxaw moom ñu ñu nekk fi ñu toog fi def fi li ñuy wax nii lu fi nekk ci richesse ne ku fi nekk mun nga tekki mais nañ la jox loo tekkee yow bu ñu la naan da ngay tekki tekki yow joxuñu loo loo liggéeyee joxuñu loo baaroo naan dëkk bi tekki mi ngi fi tekki mi fi naka ngay naka ngay tekkee koo bëgg mu tekki kay di nga yëkkati dara ne ko am lii téye ko def ko nii ak nii wala lii kat mu ngi nii jox nañ la départ defaral nii. da nga bëgg a tekki jëlal lii nga jéem si def nangam nangam tey koo yëkkati woon vingt million dix million dina ko am seetal loo ci liggéey billaay dina liggéey mais ko amul loolu naka lay def ko am benn paasam quatre cent mille am dina dugg si gaal gi de ku am trois cent mille am gaal gaa ngi taxaw dina si dugg de ku am cinq cent mille tamit dina si taxaw parce que ñi ngay boo seetee ñi si gën a bëri ñuy dem clandestin boo seetee duñ nekkatuñu waa Dakar ay yeneen étranger ñooy jóge di ñëw fii wala étranger yi ñu fi ñëw yàgg fi lool ñoom ñooy def clandestin wala ay yeneen boy yu nekk si dëkku àll yi ñoom ñooy ñëw di def ci clandestin parce que ils sont sonn nañu mënatuñu bay am ci mënatuñu sàmm am ci napp bi wax noppi dara nekku ca bon grand kon boog lan la ñu fiy def il faut nga dem ay ailleurs dem wuti ci ko tey jii tey bu ñu leen la woon boo demee Louga boo fa àggee da ngay tekki dangay amee million billaay kon ñëpp fàq dem Louga. mais xam nañu ne Espagne boo fa duggee lu mu dee dee dee boo liggéeyee bis xam nga li nga fay am waxuma la France ak neneen ne moo tax fa ñëpp dañuy fàq dem foofu grand yow yi tamit waxtaan wax dëgg sa la bu ñu nax suñu bopp. gouvernement bi li muy def nii de ñu ngi ñu ngi sonal jeunes yi te ñoom itam ñu ngi sonal seen bopp soit que ñu jox jeunes yi ay place yu baax ñu liggéey mën a am dara dimbale seen i mbokk agressé bi dina wàññeeku. sàcc bi dina wàññeeku clandestin clandestin bi dina wàññeeku mais boo naan seen i toog leen toog leen di ngeen fi mën a tekki di ngeen mën a tekki te amul fi dara loo xamante ne mën nañ ci basé wu te dinañ tekki waaye jeunes yi di dofuñu gars yi kenn doful ñëpp a yeewu est xale yu tuuti sax da ngay ñuy def manière yoo xamante ne yow da dalay da lay jommal donc ñun waruñu nax suñu bopp man daal maa ngi ñaan képp ki nga xamante tamit sa wërsëg mu ngi fële yàlla na la ko yàlla may nga lekk ko ci mu xol mu sedd koo xamante ne sa wërsëg muy fii ci senegal toogal nga muñ nga xaar ko ku fi yore loo xamante ne nii bis boo ko bàyyee gannaaw dalay nekk la loraange bul dem parce que nit ki boo demee ba di tukki si yenn yi na nga fekk li nga bàyyi sa gannaawkat boo demee sa xel day dal mais boo tukkee nga bàyyi famille te sa xel du dal loolu tukki boobu ça ne diir dangay sonol sa bopp sonal say mbokk sonal na yoon képp ko xam ne tamit am nga fii ku la jàppale bul yàkkamti toogal ñu jàppaleel ba yàlla def li gën. wërsëg kenn mënul forcer ne par la force da ngay tekki yàlla moo xam tekki doomu aadama bi mais nag affaire yoonu clandestin bi tamit suñ ko mënee wàññi doxalee ko ndànk moo gën nguur gi bu fekkee ne am na solution boo xamante ne mën nañ ko def visa yi yomb wala billet yi avion yi yomb ñu jàppale si nit ñi parce que citoyens yi soxla nañ loolu waaw parce que tey xoola même paasu màggal Touba rek Touba bi nu mu jegee tey tey bu kaali xëy ñu naan ay ñu bëri duñ dem te kaar yi noonu la ñuy def am na ñoo xamante ne ñi ñi gën a yombal paas bi ñooy ñuy fayeku 2000 mais tey bu màggal bi commencé balaa ñuy fayeku ay 5000 10000 lañ lay wax ñu bëri duñ dee dem màggal bi tey ñu bëri tey quitté wuñu fi parce que paas bi dafa cher asantuma nag ñu naan ay Europe ak leneen nañ ñu jàppale te yàlla tax ñun ñëpp ñu toog jàppalante te yàlla tax ñii di dem ci géej gi du seen coobare de yàlla nag moom moo xam mais du seen coobare seen coobare mooy nañ dem yàlla may ñuy wërsëg ñu am lu bari ñëw tekki dimbali suñuy mbokk dimbali ñeneen ak ñeneen mais du caagin dañ fa dem pour pour nii nag maali foro nii rek bëgg a dem déedéet ko gis mu def yéeg ci gaal dem Espagne rek dafa am lu tax mu jóg loolu nag comme que ñoom nguur gi xam nañ ko kilifa yi xam nañ ñoom ñoo si war a jàppale doomu aadama yi ku si am sa doom tamit nga xamante ne yow mii yore nga loo ko mën a dimbalee surtout loolu am na ñoo xamante ne ñu bëri tey seen famille ñàkkuñu dara ñàkkuñu benn dërëm ñàkkuñu dara mais amna na si ñoo xamanteni dafa melni dañ leen abandonné parce que buma amé alal gis sama benn doom bo xamanteni mu ngi ni nara footage dafa bëgg tek wala dafa bëgg dara makoy négliger bu ko yagge mu def leneen lu mu wartu def dina sacc mba mu def leneen mba mu dem dugg ci clandestin il le il le faut donc lool yëpp mu ngi fofu ñun ni man de man ma ngi ñaan di sanel di lancer message ngir euh, magu réew mi mag yi nga xamanteni ñoo yori mag ñi nga xamante ñooy maa ngi leen di ñaan nañ def ay ñaan yu mag a mag pour ñëpp ñu des seek ñi ñi fi des ñëpp ñu ñaanal ñu ñu ñaanal ñu tamit yoon bi nag nu mu gën a mën a wàññeekoo accident yi ak problème yi nu mu gën a mën a wàññeekoo baax na gouvernement bi na taxaw ci loolu jàppale nit ñi jàppale sénégalais yi bu ñu nax sénégalais yi parce que boo ne da nga naan da ngay da ngay aaye clandestin te say bateau maritime say militaire matuñu si biir géej amuñu si biir géej gaal yi dañuy dem gaal yi kenn mënu leen teree dem loolu moom muy neex tey muy naqadi suba gaal yi kenn mënu leen téye muy feneen ak feneen tefes yëpp foo dem gaal nga fay tëmb buñ ko espérer fii ci sumb rek buñ ko espérer euh, fële duñ ko espérer nañu espérer toutes les tefes toutes les plages on y a des pirogues qui se débarquent là-bas pour partir en Espagne amul fii muy Mauritanie fépp fépp ci yem.

Thank you.